bu paree nag ndeysaan ba desal tànk bu toll nii moom la lay jox yow tam boo ko dankee ba sax ko nag boobu nag ceeb la ceeb bu tooy ak diwlin nga daan dégg diwlin gi nekk fii ndeysaan nga mar ko nii doo raxasu nag déedéet yàq sa añ da nga koy téye nii rek ba ci kanam nga ne ko nii waaw léeg-léeg dongo yu kii yi bëgg laa daaneel bu ñu la daaneelee nii ngay def sa loxo pour bañ bii tax non boobu ceeb neexoon na waaw man Saalum laa jàngee alxuraan diggante Mbarag Kolobaan kub kub fa laa ko jànge Rabia li muy def dafa mujj neex ci moom yëkkati saako yeeg dugg ci néeg beeg ñoom seen yooyu. ah amatul problème boobu commencé bëgg sunu borom nag jenn waaye mas na ko wax rabia bëgg nga yàlla mu ne ko tigi mu ne ko bañ nga bañ nga seytaane mu ne ko tëluma ko <laughs> ah, waaw bëgg nga yàlla mu ne ko tigi bañ nga seytaane mu ne ko tëluma ko xat saxala nii xubbullaahi karaahiyati seytaan taluma ko bëgg yàlla gi moo tax talu ko gis nga alxalifa li taifa al muride sëñ muntaxa <laughs> sëñ muntaxa mas ngeen a dégg mu ne liw baaxul mukk moom <laughs> ki nga jàpp ne moo gën a dëng ci nit ñi boo ko wax ndax daa jum rek rabia tàmbali di bëgg yàlla bëgg gi nag di yokk ci moom ci xasidaam yu neex ya ci xasidaam yu neex ya mu ne yàlla bëgg naa la te duma sant sama bopp ci li ma la bëgg yow laay sant yow mi def ma bëgg la mu ne duma bàkkoo li ma la bëgg mais yow laay sant yow mi def ma bëgg la léegi nag benn sàcc daa ñëw këram fekk mu taaj gaas yu gudd yooyu neuf kilo sàcc ba ne ko dum yenu ko bi muy génn te seeg raab mu ne ko li nga jël dafa diis gaz bi dafa diis te boo ko jaayee six mille nga ci am la du ko ëpp kaay sàcc ba topp ko mu jël ab morso lal ko tibb ci or bi mu def ci or bi mu daan takk mu tibb ci def ci takk ba mu jekk daal di sàcc bi kii boo ko jaayee muy ëpp xaalis lee te moo ko gën a woyof te mën nga koo jàng te kenn du la gis jaar fii bala laa waa kër gee gis mun na ko déwuma fenn ma fenn maa ngi koy nettali ci waxtaan fajar bari ki démb nit daa ñëw ne Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy diw de liggéeyam dafa yàqu ne ko lu mu doon liggéey mu tudd ko liggéey ba sëñ Cheikh jox kooku juróom-ñaari million ne ko yët ko mu defar ko ci waa ji defar ba liggéey ba jaar ci woon ñëw daal di waaj ne ko tabarkàlla nee na ma ngay sant sëñ Cheikh dollu ci fukki million jox ko muy fukk ak juróom-ñaar waaj ñëw jox ko kon noppi nag mu ne ko ah, man de damaa bëggoon gis sëñ bi sant ko gërëm ko da ko baax na kooku daal ñëw ne Serigne Cheikh diw mi nga joxoon xaaj bi neen daf laa bëgg a gis mu ne ko dimbale ma ba ma gis lu xew ba bëggoo mu gis la mu ne ko suma gisee benn karaama bi nekkoon ci nit ak dignité mën na koo ñàkk ba def noo xam ne dañ ko koy xeebe te xaalis jëru ko benn mu ne ko bu bi ginnaaw du sama taalibe bokkuñu tariixa bu ko sëriñam déggee mën naa wax ne damay propagande taalibeem te loolu jëru ko waa ji nag këpp xam ci dimension bu taloon Iran ah allahu akbar waaw wa ma zala maktuman ila yawmina hada ربما لا نعرفه في هذه الزمان في هذه الدنيا وسنعرفه غدا إذا تلاقينا أمام ربنا في جنة الخلد ndeysaan ah mbàkke loolu doy na waar raabia kon daal di yéen sàcc bi ne ko diwuma fenn téyel say bagage ab sëriñ laa doon wut fii laay toog mu ne ko jita saari xan xa sarix naa ka da doon sàcc nun sàcc nañ la waaw da nga doon sàcc ñu far sàcc la <laughs> mu nga ay bind boobu bind boobu mokkoon ci noonu loolu waaye gën a bëgg rek nga bàyyi ko waaw waaye gën a bëgg rek nga bàyyee ko sunu nag ñi ku ñu rawul foofu lañ rawee ci jikkoy jaafar ci jikkoy rabia na jigéen ñépp jéemaro ci rabia ndax bëgg xubbullaahi wala xubbul ilaahi al xubbul ilaahi nga yàlla boo ko bëggee yim lay teg dootul métti ndax àdduna si rek la léegi la nga bëgg fi nit lu la teg nga nangu am déet àdduna si rek boo fi amee jabar bu la bëggee lu mu la teg nga nangu jigéen bu amee jëkkërit bu ko bëggee lu mu ko teg ma nangu waaye cey bu la bëggut <laughs> alxuraan nee na boo bëggee ku la yërëm takkal ku la nopp wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma nopp moom égal bëgg rek égal yërëm rek nopp égal yërëm waaye bu la nëbbul no koy ana añ bi mu ne sotti na ba ma yàkk ba wan na tànqal ma ndox ma sangu kon nga deede may ma ndox ma naan boo ma yaakaaree doon naan dañ laa nëbut waaye lekk duñ lekk booy naan duñ talal naan dañ lay ba nga lekk ba pare bu ñuy lekk ñu door a lekk booy naan ñu toppaloo ba nga naan ba noppi parce que góor ñi ñu ci ñeme ndox bariwul góor ñi ci ñeme ndox sangu suba sangu ngoon bariwut de ñàkk pexe rekk sangu suba walla nga sangu ngoon waaye ñaar yëpp am dañuy sax dañuy xëppoo dañuy xëppoo ma xëppoo te ñëw xëppoo rekk waaw dëgg la di xëppoo rek daal di daal di waaye boo amee jabar ju la bëgg moo lay entraîner oh. nga xëy ñeme ndox ndax góor goo <laughs> yóbbul sarbet nugalal ko ndox yóbbu saabu njàmpe ñëw ne ko yóbbul naa la ndox sangu ndox day tege bu yàggee lee mu ñeme ko ndeysaan mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot